Touba sa kanam wéyal activité am si wàllub dimbalante si Touba si mboolem gox lu tollook ñeenti téeméeri njaboot teewoon si mbaaru Daaru Xudus ngir jël seen ay ndimbal lu weesul ay ceeb dawlin suukar boole kook également yeneen xeetu denrée Serigne Mourtada Mbacke moom Cheikh Abdoul Fattah mi yor commission sociale dellu si si ni nu tëralee activité bu nu mel. waaw liñ liñ fi joxe nag euh, war naa toll ci quatre cent ndimbal. ñi nga xam ne moom la demee woon recensement lañu def doonul loo xam ne rek man damay tànn ku ma neex wala suñ fallu ñuy tànn ku mu neex waaye dañuy yebal oto yi ñu dem ci quartier dañuy laaj askan wi laaj leen yan quartier lañ jàpp ne ñoo gën a yeyoo lii ñuy def ci dëkk bi euh, at mu jot ak quartier yi ñu tànn euh, ren nag ñu tànn tànnoon euh, quartier bi ñuy wax Bëbëreel ak daarul ak kër quartier Maam Jaara sant Daaru Rahman ak fu ñuy wax Mbuluñ ak ak Umul Xuraa ak sanc ndindi yi ak sanc Touba tundoo di léegi nag bu defee recensement boobu képp ku ñu dem ci yow ba xam ne yeyoo nga ndimbali dañ lay jox dañ lay bind sa tur bind sa numéro téléphone jox la benn ticket bu ko defee nag ku nekk xam na ne social la waaye tamit euh, jàngale waale la ci am dañuy def ab conférence boo xam ne nii commission bi ñuy tuddee scientifique et culturelle ñoo koy tànn thème bi ren jii ñu ko doon waxtaane ci dimbale te yàlla ci yoonu yàlla te yàlla tax ban jeex ban impact lay am ci société bi al infaq fi sabilillahi wa asaro fil mujtama euh, ren jii bi ñu defee conférence euh, conférence bi ba noppi nag ci lañ fas yéenee séddale ndimbal yi mu toll ci cent famille euh, ndax at mu jot dañ koy yokk ren mooy troisième édition bi édition bu njëkk bi ñu ngi defoon 313 personnes ku ci nekk 313 famille ku ci nekk ñu ngi la joxoon 25 kilos saaku ceeb ak juróomi kilo suukar ak tàndarma ak 1000 francs yoo xam ne danga nga ko mën a fay pour transport bi ren jii nag comme doublé nañ nombre bi dañoo doublé tamit li nga xam ne ni moom moom la joxe ren am nañ fi 400 famille famille bu nekk ñu ngi lay jox cinquante kilos ceeb ak suukar ak tàndarma ak mille francs yoo xam ne moo koy transporté ak yére boo xam ne da ko mën a sol ci ci koré bi. ren ji nag innovation bi bokk na ci lawal social bi ba si way laago yi ndaxte ay chaise roulante boole koog ay bekke ñoom it jébbal nañ leen ko si daje bii. ak euh, suñu mbokk yi nga xam ne nii seeni i cër dafa wàññeeku ñi ñuy tudd handicapé yi ñoom tamit wut nañ lu tolloog fukki chaise fukki fauteuil roulant ak juróom 15 euh, fauteuil roulant ak juróom 15 ak 15. Euh, Euh, beek yoo xam ne danañ ci mën a dimbali loolu mooy li nga xam ne moom lañ doon séddale fii ci bisub tay bi. ginnaaw tabaxub infrastructure yu ni amal si biir dëkk bi. ak seen taxawaay si wàllu mënti doon di social ak développement. Touba ca kanam honoré waat na ren ji troisième édition journée sociale si thème bu am solo di dimbalante ak jeexintal bi mu am si biir société bi.